Euh, jëm ci daara ji euh, ci loolu nag dañuy ñëw ci jëwriñ ji nga xamante ni moom moo jiite woon euh, li nga xamante ni mooy ngàccum ndox mi bi naka la ak ndox mi ñaata fan la fi defe ko ah man maa ngi tudd Moustapha ah, ndox mi yàgg na fi parce que chaque nawet nii lay demee mais maa ko gi dafa tombé ak nawet loolu moo taxoon te bi dafa boo xam ne maam carte solidarité la maam yaakaaruñ ci kenn gis nga lamp yi gis nga télé bi tamit ni mu yàqoo yëpp ñu ñoo génne suñu mooy bopp ak xama xalaat gars yi nga xam ne bi may ñëw sax fekk naa ñu joxe xalaat bi mais ñun ñoo génn ak ñaari nit ñett nit askan wi yëpp ñëw génn fekk ñu si xam nga génne seen i moyens gis nga oto bi sax ñu ñoo ak suñu suñu suñu suñu xaalis bopp pour mu vider ndox mi borom kër gi tamit dimbali ñu si moom tamit ne lii suñu terrain la ndox mu ngeen fi vider man man man ngeen ko ci def ci biir wax dëgg yàlla soxla nañ dimbal quoi soxla nañ dimbal parce que fi koñ bi lëndëm na télé bi yàqu na taataa ndox yi bëri na amul sécurité amul dara mu mel ne am na oto yi ñuy wax ne dañuy dañuy wër di nga ci ndox ne bi ndax fii wala dafa dafa féete boor

wax dëgg yàlla fi mu toll nii wax dëgg yàlla soxla nañ ndax tali gis nga amul amul territoire amul dara ah. guddi gi tamit lamp gis nga guddi gi benn du tàkk daanaka bu benn tànk mën ngaa dox mën nga am gis nga la dem ba ndindi wala nga dem ba bu daaru mar loolu lépp ay jafe-jafe wax dëgg yàlla ñi ngi ndimbal xam nga di ñaan autorités yi Abdou Lahad Ka nga xam ne moom moo jiite dëkk bi ak sëriñ si bépp autorité daal ñu ngi lay ñaan fii nga xam ne moom mooy asalem télé Hizbut Tarqiyyah yi ñu koy wax jàkkee ñetti paa wax dëgg yàlla soxla ndimbal ñi soxla ñëpp ñu jàppale ñu xam nga ñu jiite ñu ngi leen ñaan daal ndimbal di sàkku ndimbal ñu jàppale ñu quoi wax dëgg yàlla ndax sonn